De retour sur ce plateau avec euh, l'Institut supérieur de technologie Subtech et l'Institut supérieur d'informatique EASY. Nous allons recevoir euh, tout à l'heure Oussas Alunssal. En attendant, euh, nous allons recevoir le Djouring universel des Tchantakoun. Vous savez que Cheikh Betchoutoun est sans nul doute l'un des guides spirituels les plus charismatiques du Sénégal. Aujourd'hui, il est au devant de la scène après son incarcération en raison du décès regrettable de deux de ses talibés, suite à une bagarre qui a éclaté entre ses disciples. Pour nous en parler, comme je disais, nous recevons le Dieu universel Idrissa Sam. Il est de retour à Dakar depuis 2005 après 20 ans d'absence, quand il a entamé son périple africain qu'il a mené à Cotonou, à Lagos, à Accra. L'ambiance musicale sénégalaise était au Pachanga. Aujourd'hui, il a lancé un nouveau groupe. Il vient de mettre sur, euh, le marché un nouvel opus qu'il a produit lui-même intitulé Mounelen. Veuillez recevoir, mesdames et messieurs, l'artiste Edou Bokande. bonsoir tout le monde. Bonsoir Edouard. Bonsoir. Euh, euh, donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, vous revenez, euh, vous êtes revenu au Sénégal en après un périple africain de 20 ans. Oui. Vous avez commencé la guitare très jeune, je pense à l'âge de 12 ans. Oui. Et à 16 ans, vous avez, vous avez formé votre premier groupe. mais vous, avez une formation plutôt scientifique. Je sais même que vous a euh, vous, vous, avez fait des, études d'architecture, je pense que vous avez fait aussi des études de mathématiques. Comment vous avez pu concilier tout ça Non, bon, <coughs> pardon, excusez-moi, la chose est assez facile à comprendre. Euh, dans la plupart des familles euh, en Afrique, quand vous dites que vous voulez faire de la musique, à moins que vous soyez prédestiné pour ça, je veux dire à moins que vous soyez griot, évidemment c'est un conflit que vous vivez avec surtout, les parents. Surtout pour les <laughs> parce que, euh, les parents ont commencé à comprendre que être musicien, à par mes propres parents, euh, euh, c'était un métier. La preuve, c'est qu'ils ne m'ont pas euh, depuis l'âge de, de 22 ans à peu près, et je me débrouille. Alors, Et lorsque j'ai reçu donc cette guitare à l'âge de 12 ans, je ne savais absolument rien. Comme on dit, j'étais un tuné parce qu'il y avait des gens qui jouaient, mais tout de suite, j'ai accroché. Donc c'est ce qu'on appelle une vocation et une vocation précoce. Ouais. Et je me suis tellement donné à la chose que euh, quand je revenais de l'école, donc entre midi et 14h30, Et le soir et même la nuit, à 3h, 4h du matin, j'allais m'enfermer dans la cuisine pour travailler. Bon. Et puis, euh, à l'âge de 16 ans, à force de travail, j'ai dépassé bon nombre euh, de guitaristes qui étaient des guitaristes chevronnés parce que euh, là, il est, je pense qu'il serait bon que je retrace un peu euh, ce qui s'est passé à une certaine époque ici à Dakar parce que c'était extraordinaire. il y a eu toute une génération de musiciens, je peux en citer quelques-uns. Il y a eu Cher Tidiane Tal, qui mhm. joue au Khalam. Euh, Adama Faye, Adama Faye qui était un ami, on était tout le temps dans la rue, à rue 10, le mhm. frère de Vieux McFay. il y a eu Alex Correa, il y a eu Patrick Ripper. Donc il y avait euh, des musiciens qui s'étaient débrouillés ici dans ce Sénégal pour acquérir un certain niveau sans aucun professeur. Bon, euh, je me vante de faire partie de cela. La seule différence, c'est que euh, ceux euh, qui jouaient, comme Cher Tidiane euh, Tal, par exemple, commençaient à jouer très tôt, euh, ils jouaient et je crois que les parents euh, étaient de fait obligés d'accepter les choses, tandis que moi, c'était compliqué. Donc, quand il y avait les concerts, les grands concerts, je parle, c'était pas des petits concerts, des concerts à la salle Daniel Brotier, Il y avait des grands concerts organisés par le Khalam, etc. Donc nous, les, disons, les moins professionnels, on nous faisait passer en première partie et on affinait nos armes. Mais euh, un jour, ma mère, donc j'étais à l'école, je crois que j'étais en troisième ou en seconde, elle est venue en douce donc à un de ses concerts et puis elle a constaté, elle a vu que elle avait un fils qui, qui était Guitariste non, de talent. Non pas, seulement guitariste de talent, mais guitariste qui osait affronter les scènes. Voilà. <laughs> Actuellement, euh, vous avez sorti euh, euh récemment un album qui s'appelle euh, Moon Hélène, que, vous avez, produit vous-même. Oui. Euh, je, je, pense qu'on a un clip avec nous qu'on va, passer tout de suite avant oui. de revenir sur ce plateau. Tchandoum. jam un peu des sonorités jazzy dans, dans votre musique Voilà. Alors ce mot jazzy, ce que je disais, j'aimerais que nous fassions tous très attention à ce mot jazzy. C'est vrai que j'ai été formé à l'école du jazz et du blues et même du rock parce que à l'époque c'était euh, ce à quoi je pouvais accéder sans passer par, prof, par un professeur parce que c'est ce qui passait à la radio, etc. Mais pourquoi je dis qu'il faut faire attention Parce qu'il ne faut pas que les musiciens africains pensent que le jazz, c'est une potion magique ou bien qu'un musicien qui fait du jazz automatiquement accède à un niveau qui lui permet de faire la synthèse de toutes les informations et surtout quand il est au contact d'un musicien, soit traditionnel, soit qui connaît, qui connaît moins, qui fasse le malin parce qu'ils disent, moi j'ai appris, c'est très dangereux. La seule chose qui compte, quelle que soit l'activité que vous, vous, vous, vous pratiquez, c'est d'avoir un niveau de synthèse et de réflexion qui vous permettent d'analyser et d'échanger avec d'autres personnes. Mm. Bon, d'autre part, ce que je n'aime pas dans euh, cette connotation jazzy, parce que si euh, euh, je me ferais un plaisir, bien sûr, euh, d'offrir des albums à certains d'entre vous, lorsque vous écoutez tout l'album, vous allez voir que je navigue Euh, dans des terrains qui mmh. sont hmm. beaucoup moins jazzy. Tout à l'heure, vous nous ferez un, un live en, en fin d'émission de, de, oui. de l'album euh, éponyme, euh, de, du titre de, de l'album Mounelen. Mounelen ouais. euh, mais, mais, en attendant, peut-être je, je, vais demander à, à mes camarades euh, ce qu'ils en pensent, euh, Sorna Benga. Mm -hmm. euh, C'était par rapport, parce que vous, nous, vous nous avez expliqué les raisons de votre départ vers le Bénin. Mm -hmm. Êtes-vous revenu Et si vous êtes de retour au Sénégal, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir au Bercail Alors, je suis revenu pour des raisons familiales. Mon père étant décédé, comme moi je suis en Afrique, mes autres frères sont l'un aux, aux États-Unis, l'autre en Europe. On a dit toi là l'Africain, c'est toi qui dois venir à côté de ta mère. Je suis venu, elle est décédée et bon, là je compte repartir parce qu'il y a une chose qui est importante, il faut que euh, les artistes africains, les musiciens comprennent que s'ils veulent vivre de la musique, parce que c'est un challenge, il ne faut pas qu'ils se limitent à un espace Euh, géographique qui soit restreint ou même sahélien. Le, le Sénégalais aime fonctionner au Mali, à la rigueur au Burkina et peut-être un peu en Côte d'Ivoire. Et moi, je dis l'Afrique de l'Ouest, c'est un marché. Comme moi, j'ai eu la chance d'aller au Bénin. Je connais très bien le Nigeria, très bien le Ghana et très bien le Togo, assez bien le, le Burkina. Ce que je compte faire, c'est vraiment faire la route. C'est une route. Et cette route-là, il faut l'exploiter. Il ne faut pas attendre toujours les centres culturels et autres pour organiser des choses. Il faut l'organiser. Edouard Bocandé, vous, vous avez été absent très longtemps. Oui. Alors, euh, donc vous avez surtout évolué sur l'international, la France, l'Allemagne et euh, ouais. l'Afrique de l'Ouest. Quelles sont vos distinctions internationales en musique je n'ai aucune distinction Alors, internationale. Est-ce que, est que, cela ne veut pas dire que vous, vous avez cheminé sur l'international sans récolter euh, grand-chose oui. et que vous revenez aujourd'hui euh, au Sénégal euh, avec euh, un style qui n'est plus d'actualité, hein, votre style, mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, c'est euh, c'est le rap, euh, c'est le mbalaax, euh, c'est le slam, etc. <laughs> Alors, est-ce que cela ne veut pas dire que vous devez mettre un terme à votre carrière, en fait? Bon, j'ai remarqué. Que... <laughs> Hein? Non, je, je, je, je, suis, je suis sérieux dans ce que je dis. Parce que, regardez, vous avez fait. Non, on, on, le laisse répondre, non euh, hein? J'ai posé une question. Que vous étiez un journaliste euh, qui aimait provoquer.

C'est mon challenge. Et euh, je, suis. Vous-même, qu'est-ce que vous avez créé tous ces morceaux que vous entendez mais Ces morceaux ne vous ont apporté euh, rien du tout. Si, non, si, mais ça, ça c'est un album qui vient de sortir. Hein? Non, non, non, non. attendez, Vous êtes rentré au Sénégal depuis ah, c'est un album qui vient toujours. Qu'on a l'exclusivité, c'est un album qui vient de sortir. Pas de disque d'or, ni de platine. Non, non, non, jamais aimé ces choses là. Ah ben ces choses, c'est des ventes. différentes. Hein. Non, oui, mais attendez, laissez-moi développer mon point de vue. La première chose qu'il faut, c'est déjà de vivre de la musique. Et de ce point de vue, je dis que j'ai plus que réussi ma mission. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous pouvez être un musicien qui est connu, parce que vous allez faire deux, trois tournées à l'extérieur. D'une manière générale, en Afrique, les musiciens ne gagnent pas très bien leur vie. Et vous pouvez être un artiste qui est entre les deux eaux et qui gagne très convenablement sa vie. C'est votre cas. C'est mon cas. C'est-à-dire que vous vous êtes Alors, servi de la musique, mais vous n'avez pas servi la musique. En ce sens que euh, si vous aviez servi la musique, oui. vous auriez été reconnu primé internationalement, ou même nationalement, ce qui ne, ce qui ne s'est pas fait. est le contraire que tu dis quand il sert la musique, c'est pas, pas, quand on sert la musique qu'on n'a pas de distinction. C'est-à-dire qu'il donne des cours, il, fait des créations, il fait des choses. la musique. Et quand on se sert de la musique, c'est lorsqu'on a des, distinctions et que finalement, le disque d'or, c'est dans Les, me artistes artistes au hmm. monde ont vécu toute leur vie sans avoir de prix. C'est après leur... Mais tu parles de qui Non, non ça, je suis si, désolé. Si, si, tu parles de qui, Sohna Donne-moi un exemple. Dans tous les domaines. Les meilleurs artistes du monde, c'est les Michael Jackson. Ah bon Oui. C'est les Madonna, c'est les Lady Gaga, c'est etc. Elles sont primées, oh, ces gens, ces personnes-là. Oh, ah oui, il y en a qui n'ont pas été. Ah oui, Et eh, attention, ouh, ouh, ouh, attention, attention. Là, on, on, on, parle de chiffres là. Hmm. Euh, cette, euh, cette fille là, C'est le marketing, euh, ça. Oui, mais attention, si cette fille-là, on ne peut pas vendre quelque chose de mauvais. Hein. Il y a des gens qu'on a essayé de vendre, des artistes, ils faisaient des choses mauvaises, mais c'est jamais passé. Lady Gaga est la première personne à avoir enregistré un milliard de vues sur YouTube. c'est pas n'importe quoi. Mais Il faut être dans la machine, ça. en fait. C'est des chiffres. Alors, euh, ce que je veux dire, c'est que... Vous avez raison, c'est très simple. c'est que quelque part, il faut que nous arrivions, nous, les Africains, à tirer euh, les conséquences de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes. Vous, vous avez essayé sur l'international, vous vous êtes servi de la musique et vous avez vécu convenablement. Non, j'ai jamais essayé sur l'international. Non, vous avez, il, oui. non, non, il faut bien laisse, comprendre. Parler, oui. Vous faites une erreur. Moi, j'ai vécu en Europe 7 ans. Sur les 7 ans, Pendant deux ans et demi, j'ai eu une carte de séjour. Après, à Paris, il y a un policier qui voulait me tirer dessus parce que je n'avais pas ma carte de séjour. J'ai fui, je suis allé en Allemagne. En Allemagne, là-bas, on vous demande aucun papier tant que vous ne faites pas euh, de bêtises. Je suis revenu au Sénégal, je suis plus reparti là-bas. Donc moi, Ce qui m'intéressait, c'était pas. Mais les 1000 vivre... francs français par heure, là, c'était en France. C'était en France. Donc vous avez commencé à vivre de la musique bien en sûr, France. C'est ce, ce, que j'ai dit. Oui, Maintenant, mais... quand vous êtes allé hein, au Bénin, là-bas oui. aussi, vous étiez bien installé, comme vous avez dit. Très bien. Et oui. euh, vous vous êtes servi de la musique pour, euh, pour, pour vivre décemment. Maintenant. Ouais. <laughs> il, a, il, a, il, travaillé, il a vécu de oui, son travail. C'est pas servir de la musique. Très bien. Maintenant, ce que au Sénégal, la configuration euh, musicale a totalement changé. Moi, je vois votre, clip là. Mm-hmm. Euh, je dis, ce clip là, mm. mais on ne fait plus de clip comme ça. Mm-hmm. Je suis désolé. <laughs> Euh, on ne voit aucune construction scénaristique. euh, il n'y a pas de il n'y a pas de chorégraphie on voit une femme qui arrose une plante une fille sous un sous un manguier oui. je veux dire euh, c'est pas des choses comme ça aujourd'hui qui vont donné à la musique sénégalaise. Non, tu n'as est-ce que tu sais de quoi non, ça une fille sous le manguier et une, autre femme qui arrose les, les plantes. Ouais. Donc, si tu as euh, vu tout le clip, tu aurais su que c'est quelqu'un qui vient, retrouver sa fille et que sa maman ne veut pas qu'il la voie. Oui. C'est le problème des couples qui sont séparés. voilà quoi. Donc il faut, a, un <laughs> arrêter d'accabler nos amis. moi, je ne peux pas juger de ce que je n'ai pas vu. Donc, voilà, je parle Mm. Alors, donc, Edouard donc, Bocandé. pas parler de ça, hein, parce que tu l'as pas vu. <laughs> non, je parle de ce que j'ai vu. Ah, non, mais non, tu, tu critiques droit. sur des choses que non, tu n'as pas vues, je suis désolé. Je, parle de ce que j'ai vu. Non, il faut pas critiquer alors. Il faut, non, quand tu critiques, pas, il faut. Je faut... fais un constat ah, voilà. sur ce que j'ai vu. Non, tu as je dit qu'on ne fait plus de clips comme ça. Ah, non, tu ne peux pas dire ça. Mais j'ai le ah, droit, j'ai le droit d'apprécier une chose que j'ai vue. Non, tu n'as pas vu, que tu n'as pas vu. <laughs> Allez-y. Alors, Edouard Bocandé, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, vous avez quel âge, s'il vous plaît euh, J'approche 60 ans. Très bien. Euh, je pense que vous, vous ne pouvez plus faire de slam. Mm -hmm. Vous ne mhm. pas faire de rap. Oui. Vous ne pouvez plus être Youssou mhm. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de mettre un terme à votre carrière de la plus belle des manières, mhm. d'ouvrir une école pour apprendre aux jeunes de nouvelles, euh, de nouvelles techniques, pour s'insérer avec des valeurs, les valeurs africaines, euh, ici au Sénégal et mais d'apporter votre valeur ajoutée de cette façon-là. C'est ça. Okay. Parce que quelque part, et je termine par là, quelque part, si vous continuez dans cette voie-là, OK, euh, vous aujourd'hui, vous n'êtes plus parti pour recevoir des distinctions. OK, vous n'êtes plus parti pour avoir un disque d'or. Vous n'êtes plus parti. Mais qu'est-ce que tu en sais? mais vraiment, non, mais Tunkara. Ah, j'espère que l'histoire non, Non, vraiment, vous donner. Non, mais non, mais attends. Je il vient de sortir son album. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas mais parti le monsieur a les plus belles années de sa vie derrière. Mais non, je suis désolé. Mais attends, mais, je suis désolé. aussi. pas d'accord. Euh, on a vu des grands chanteurs. Mais Henri Salvador, à quelle année Quand il a ans, il a reçu, il a reçu, Bien sûr, Vraiment, non. Non, là, on va, je pense qu'on va conclure parce que parce qu'on doit recevoir non, non, non, non, non, non, non, non, mais pour conclure, là, parce on va pas continuer. Que moi je conclue. Oui, oui, ouais, je pense qu'il faut conclure. Oh, Tchétchan nous me dit que vraiment ouais. est assez épuisé. Donc, il faut conclure sur ça et mais lui la, la parole. Voilà, exactement. Lui la parole. Euh, OK. Et je fait, peux là. conclure quand même. te plaît, tu nous épargnes, tu vas pas avoir du disque d'or parce <laughs> Alors, vous, aujourd'hui, Edouard Bokandé, pourquoi vous n'allez pas dans cette direction-là okay Vous avez capitalisé un savoir, faire une expérience dans le, sur l'international, mm-hmm. en Afrique de l'Ouest, mm -hmm. et que vous ramenez ici. Pourquoi euh, vous n'allez pas dans la direction, aujourd'hui, de transmettre mais de manière beaucoup plus, avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus d'encadrement pour les jeunes au lieu de continuer à faire comme ça de la musique. D'accord. Et c'est okay. ça le mot de la fin, on vous laisse. Alors, euh, oui, le mot de la fin, moi je pense euh, sincèrement que vous faites une grosse erreur. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous parlez de Lady Gaga, de euh, Michael Jackson, euh, de Youssou N'Dour, de Omar Penn et tout ça, ce sont des gens qui ont réussi parce qu'ils ont trouvé relativement tôt la voix, leur voix, c'est-à-dire quelque chose qui leur correspond. Il y a des artistes chez lesquels ça prend beaucoup de temps. Vous savez, le processus de la création et de la direction que vous prenez, ça prend le temps que ça prend. Ça peut venir tôt comme ça peut venir tard. Chez moi, c'est venu tard. C'est-à-dire, je suis un musicien, j'ai accompagné différents artistes, on me dit fais tel job, je le fais, etc. Mais le moment, il est arrivé un moment où j'ai dit je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. Et ça, c'est venu à l'âge de 50 ans. Donc considérez-moi comme un vieux jeune qui débute, tout simplement. Maintenant, on verra comment euh, l'histoire va sanctionner. on vous souhaite, le meilleur. On, on, pour votre album euh, qu'on a écouté et que je pense que c'est un très bel album. On vous souhaite une bonne continuation. Euh, tout à l'heure, comme j'ai dit, on va avoir un live peut-être en fin d'émission pour que les, téléspectateurs voient mieux ce que vous faites. je pense que tout de suite, on on va accueillir euh, euh, euh, notre invité qu'on attendait depuis tout à l'heure. C'est un homme religieux issu du Dara de Koup-Koup dans la région de Fatick. Chez son maître El Hadj Maguette Dieye, que Dieu l'accueille dans son paradis. Il consacre toute sa vie à enseigner et à apprendre la religion islamique. Célèbre grâce, grâce à ses sermons à la radio, il anime une émission sur Sud FM depuis plus de dix ans. Je vous prie de faire un triomphe à Oustaz Alioune Sall. salaamaaleykum oustaz. waaleykum salaam wa wa barakaatu. ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. di kontaan lool si li ñu la dalal fii tey. maa ngi leen di delloo ziar. di leen nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm. alhamdulilah donc euh, semaine bi passée def naa bi ñu génn moo doon journée journée daara donc euh, comme ni nga ko xamee daara xëj na dafa bëri ay ay ay jafe-jafe ci dëkk bi ñu nekk ni yéen lan ngeen si mën a wax lu loo xam ne dina dina tax euh, daara yi gën a gën a suqaliku. alhamdulilah euh, ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen ñi toog ci jataay bi yëpp ak ñi koy doxal ak di nuyu ñu koy seetaan euh, daara pour laaj ñu ci lu ñu lu ñu soxal la te yëtteel nu ndax moom rekk la ñu am te bu nu juddoo ba léegi mësunoo jàngal dul daara yaakaar ci teraangay fii ak teraangay fële moo tax bu nu ci laajee lu koy doxal ak yan jafe-jafe la am dinañ ci bëgg lool jafe-jafe yi am euh, mooy daara daa amagul fum bootu xam nga dëkk bi ministère yi bari nañu daara bokkul fenn. bokkul ministère éducation déedéet déedéet. ñu ngi ko boole ci ministre bi yor wàllu culture. Hmm? te daara ak culture jotewuñu dara. ba amee indépendance ba léegi daara ak culture noo ànd donc su boobaa fi nuy dugal war noo dugg foofu maa ngi yaakaar ne dañu waroon boole ci ministre bi yor wàllu éducation nationale. comme boolewul nu foofu nag moo tax kumba amul ndey rek la ñuy doon la doon. léegi boobu ba léegi jafe-jafe yi ak yéen ñi nga xam ne toujours yaa ngeen si rajo yi di si wax si télé yi di si wax pourquoi loolu ba léegi amul benn benn avancement. a ah, waaw ndax fi ñu ko war a jooyee ginnaaw dunda àgg foofu ba jooy ko suñu jafe-jafe du jeex ginnaaw culture lan nu jox te éducation lan nu war a jox suñu jooyee ba jox culture du nu delloo li ñu war a am ndax yorut suñu yëf. mais président bi fi nekkoon moom gis nañ ne mu ngi su doon def ay jéego def naa dugaloon nañ ko si enseignement bi. ba di si di si jàngale. dée ko dégg rek dee dégg rek ndax su doon luñ def duñ toog dinu ko laajaat gis nga cas di tout petit yii. Mhm. bu ko daara yi man rek seen affaire réglée. département yëpp am nañ lee cas di tout petit te ñu ko def les cas des daara rek mu jeex. <laughs> waaw loolu de xam naa ne Macky Sall de mënoon na ko récupérer noonu parce que defe naa case du tout petit tabax bi rek fi nekk waaye defe naa si biir kenn yenn yi ngi toj yenn yi sax a ngi toj nag <laughs> yenn case du tout petit moom mi ngi tàmbalee toj ndax at tabax moom bu kenn dëkkee dëkkewul rek mbóot yee kañ yi dëkkee ko mu daal di yàqu léegi xaalis bu toll noonu nag daal di yàqu noonu bu ñu ko joxoon daar yi rek fi nekk ni sëriñ daar yi daa di cay dellu dëkk bi daal di féex mais est-ce que est-ce que léegi yéen euh, booloo ngeen pour mën par exemple yu mel noonu ngeen koy xeex ak ni ñu xamee diine ni mu fi amee doole quatre-vingt-quinze pour cent population bi wala lu ko ëpp ay jullit nañu ay kilifa yu bëri yoo xam ne fu mu toll nii dëkk bi am nañ fi kàddu am nañ fi xaalis bu bëri sax si daara yi nañ jógee. est-ce que ñoo ñëpp boo leen àndoon ak ñoom. jox leen ay programme soo bindee quatre vingt pour cent. ab neuf la ak ab cinq. Mhm. moyen naa feq yi égal. <laughs> loolu oustaz man sañu sañu ma seet tontu kooku kooku moom sañu ma seet tontu parce que man aw ma aw ma ma xam ma xamee ñan ñoo si naafeq ak ñu si dul naafeq waaye mais li ma mën a xam man si concrètement mooy que ñëpp bokk ñu ngi uyoo ay julit te si ñuy uyoo ay julit si wàllu si wàllu si wàllu nguur gi ñi nga xam ne ñoo yor pouvoir ñu si bëri génn nañ si si ay daara si wàllu économie ñi nga xam ne ñoo yor alal bi ñu si bëri génn nañ si ay daara donc bu ñu boolee ñi am xam-xam ñi am économie ñoom ñëpp ñu booloo xanaa mën nañu trouver solution. dëgg la waaye li ma la wax sànq rek boo ci am ni muy ñore ñu mu war a ñor bu leen ko ñoree ñu téeméer boo wàññi juróom ñeen fukki juróom nekk ay jullit ñu xam ne daara ku ci faatu daaray ñëw ku ciy céetal daaraay ñëw kuy ngénte daaraay ñëw kuy feral daaray ñëw kuy jaaxle daaray ñëw bu leen ñoroon ñoom ñëpp ñu nekk ay vrai musulman quatre-vingt-quinze pour cent daara du jooy. li ñuy am di ko dugal feneen kon ci daara lay dugg ndax su ëllëgee réserve bi nga xam ne mooy daara bu ñu amee lu soxla mën caa dem jël ko mais 95 pour cent mooy leen naa fiq égal trois pour cent peut-être. peut-être loolu moom yéeme trop soxna Benga. kii li li Alioune doon wax sànq dama ciy dellu si ndax euh, xam nga sànq danga wax da ngeen wax lu am solo mooy euh, pour centage musulman yi. stage di ñu tooñ di wax naan di wax euh, vrai pourcentage bi ñuy wax donc euh, li ma bëgg a wax mooy souvent dangay gis ci biir famille yi ñun ñi nga xam ne ñu ñuy yëngatu peut-être ci wàllu éducation mbaa culture ci aada yooyu da ngay gis ci biir famille yi ne ku ci nekk parent yi dañuy posé wu question seen doom mu ngi dem école mais bëggoon nañ xale bi jàng alxuraan c'est-à-dire mun a am lu mu xam ci diineem te xam nañ ne diine tey peut-être plus ngay gën a màgg di nga xam ni mu amee solo ci nit ki ndax moo koy tabax tey bu xalewu wu woon fii dem bitim réew bu nekkee diineem dëgër na ci moom loolu moo koy aar ci lu bëri tey ñu sukkandiku ci loolu ñu ne peut-être euh, niñ ko war a xalaatee diine jooju parce que tey boo nee daara rek nit ñi xalaat taalibe boo nee daara rek nit ñi xalaat leneen loo xam ne dëgg dëgg dëgg ñi jóge ci daara waxuñu loolu par exemple tey da ngay man muy man muy ku munti doon suñuy pàpp suñuy maam ñëpp ci daara lañ jaar te gis nañ ne daare tabax na nit ki ci lu bëri mais perception bi tey nit ñi am ci daara mooy tey sama doom mu ngi dem daara tey ñu ngi gis xale yi ci mbedd mi ñu ngi gis lii ñu ngi gis lii xale yu bëri boo leen laajee tey mënuñu la réciter sax saar yi war léegi man xalaat naa ne pour man am na liggéey boo xam ne war nañ ko commencer liggéey boobu mooy gën a yee nit ñi ci importance bi ñu won leen ne li ngeen xalaat ak liñ leen bëgg a gëmloo ci seen diine euh, du loolu mooy diine ji diine ji lii la te aussi ñu mun a ngeen mun a ñefe ñun ñëpp sax parce que damay naan ñun ñëpp ay ñefe pour que tey ci biir école yi xale yi am possibilité jàng seen diine tey ñu nekk catholique mbaa ñu nekk musulman mbaa luñ munti doon ñu mun a jàng seen diine mun ko jàng ci foofu la mën a sukkandiku pour éducation bi mun a am solo ci Sénégal mais tey am na parent yu bëri ragal bi am na fu mu nekkee te ragal boobu nu nuñ koy waxee jàngat bu nit ñi am la te jàngat bi jubul wax bu nit ñi di wax te wax boobu jubul moo indi ragal bi te ragal boobu tey oustaz yow noo gisee parce que yow damay gis ne kuñ sañ wax nga wax nga te loolu am na solo ndax nitu nitu dina dëgg day day sañ wax du ragal Euh, tey loo mun a gisee loolu ba mun a yee nit ñi ragal boobu dañ ci ñoom ñu mun a tey autorité yi parce que aussi il faut que mu am solidarité il faut que nit ñi mobiliser wu booloo pour que pour que loolu ñuy ñu ñuy mbëbët mbaa ñu yaakaar ko mu mun a am ci réew mi parce que quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans la mais tey quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans yooyu foog aussi ñu am fit mun a xalaat ne lii kat ñun ñu yaakaar ci suñ diine foog ñu mun ko am pour loolu mun a am Euh, xam nga nu ñëppay fay impo loo jënd rek nu tibb ca TVA def ci kees gi bu élève bi xëyee këram sol lu set ngàbb bu mburóom sol dàll yu rafet bokkub saagam dem jàngi zéro euh, mètre ñibbi siwaat dongob daara bi li li li li li papa bi di fay lay fay ci dëkk bi sañ-sañ yi mu ci am la ci am waaye dongob daara bi amul moom fu muy xëy dem jàngi fa sëriñu daara bi moo koy fexeel fu muy jànge wutal ko pakkus boo xam ne bii dañ koo raax te kenn pentiiragu ko lu tax pour di ko fa jàngal moom ndax suñu te ñàkk a jàngale man fi ne sëñu maa ñàkk a jàngale ndax su ma jàngalee bu ma demee suñu borom dana ma dóor kon kooku kopp koppal yooyu muy def noonu rek la mën a def noonu rek la mën a def su ko defee yooyu nag du du sëriñu daara bi déedéet état bee ak parents d'élèves yi ak jullit yi ci seen bopp waa penc bi suñu àndoon ñoom ñëpp yëg ne kii ñu ngi koy néewal doole buñ ko jàppale rek dooleem daal di ñëw. waaye li ma bëgg a wu ko. waaye oustaz li ma bëgg a wax tey xam nga tey boo duggee da ngay gis école yoo xam ne man par exemple am na benn émission bu ma doon seetaan télé gis benn daara joo xam ne classe la. classe boo xam ne xale yi dañuy ñëw jàng si toog jàng seen li ñuy jàng ak yëpp. mais est-ce que loolu tey du ci chemin boobu la ñu war a dem ubbi ay école école yooyu bénéficier ci ministère de l'éducation nationale li yeneen école yëpp di def école yooyu mun cee bénéficier pour que comme ni ngay wax ñooñ di jàngale daara mu bañ a nekk nga nekk ci suufu garab mbaa suuf fen di ko jàng loolu la ñëpp mënut semaine bi weesu ci journée daara yi mhm. seen rajo seen télévision bi ñëw na sama daara wane na la fa am mais loolu ñëpp mënuñu ko ñi ko man mooy ñi nga xam ne am nañu doole lu yëg kër wala yëg kër suñ nee Alioune Sall dafa am benn jenn daara jox xam ne ji wala daara joo xam ji un million trois cent mille lay fay par weer pour xale yi man faa nekk jàngal xuraan sëriñu daara yi ci mbedd mi fu ñu koy jëlee mënuñu ko am te man ba mu ubbeek léegi maa ngi bëgg am ci juróom ba juróom-ñetti at yoo xam ne yi benn ministre wala kuy jóg ci état wala nang musu faa ñëw ne ma jëlal piqûre bii di ko piqûre xale yi mosul am léegi loolu ñëpp mënuñu ko te ñun ñëpp ay sëriñu daara lañ mënuñoo ñàkk jàngale ñuy jàng ci école privée yi li ñuy fay ñaata la kenn xam nu mu toll sëriñu taalibe bi moom tam daara ji mu jàng nekk daara yi privé mu bëgg lu mu fayee nu muy def moom it tumuraanke googu nit ñee leen seetaan rek loolu dong lay tekki sëriñu daara bi li man lépp mi ngi koy def ñi ngay xool ci mbedd mi ñu yalwaan ak def yëf am na ñoo xam ne duñu yalwaan boo demoon sama daara tey jii xel xalaatu nu mat na ñetti téeméeri donga waaye duñ yalwaani waaye sëriñu daara yi ñëpp mënuñu ko bu ñu ne fay fay ñu sax fi nekk nii daara boo fi yore fi nekk nii cas sociaux yi fi ne toll na ni toll na ni li li li daara bi di am cas sociaux yi moo ko foofu te moo koy jeexal donc ma waxati ko rek état moo war a jóg parent yi jóg waa mbedd mi jóg jàppale daara sinon nii daaray mel lay mel rek ak métier itam ndeysaan nekk kumba amul ndey te itam loolu nga xam ne ay classe la woon léegi lañ koy ñeme rek mais ci jamonoy 1800 sunu daara yi nekkoon ay classe dañ koo taaloon fab sëriñ si dugal ci kaso yi. dëgg la moom waaw ndax rek bu daara dem. ñoom waaw léegi nag ñi ñi xam si daaraa ka kopp kopp la ko def yëf ñu ñooy dellu si ñooñu moo ñoo defaat nag daara internat yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi di jéem di suqaliwaat. loolu fi la daara toll fi nekk nii ak jafe-jafe te neexa rek la nag loolu soxna si. daara soxlawul ay affaires yu bari lu tax fi nekk nii arabisants yi jàngale ci fekkee baat bi nu ko waxee. yi jàngale ci gouvernement bi ay ba bi bu ta ti tuuti amul solo lu leen tee ñu ubbi leen ay daara ñuy jàngal ñuy jàngal xale yi ay alxuraan ak ñoom seen yooyu te di leen fay ay solde yu mat sëkk te duñ jàngale dara. jàngalekati arab yi ci école yii jàngale wuñ fa dara ba bi bu rek lañ fay jàngale. Doğrusu <laughs> Tuncay. waaw oustaz yow <laughs> baa bii bu nga lañ fay rek jàngal moo tax duñ jàngal ku dégg arab duñ jàngale ku dégg alxuraan eh, eh, léegi oustaz xam nga yéen li ngeen def moom dañ koo rafetlu ndax suñu diine moom daanaka moom moo njëkk moom moo mujj alhamdulilah ngeen koy firee bés bu ne nit moom du faatu mukk ñu naan nañ teg musique mi wala dañ tëgg taaxuraan beeg sabar beeg yooyu Euh, yàlla lañuy ñuy woo ak diine euh, moo tax yéen li ngeen di def dëgg-dëgg am loolu solo euh, ñu ngi ñaan yàlla moom mu barkeel ko amiin oustaz kon yow li nga wax mooy fi mu toll nii yéen daara yi Youssou Ndour moom mooy seen ministre actuellement nii. waaw normalement. ah normalement mooy looloo am. moo tax ma ne normalement. looloo am mooy sunu mooy sunu ministre. mooy mooy mooy seen ministre. waaw fii ne nii mooy sunu ministre. waaw lool lool loolu laa wax Youssou Ndour mooy seen ministre. yàlla nañ fa jóg nag <laughs> ah maanaam waxuma yàlla nañ jóg ci Youssou Ndour mais yàlla nañ jóg ci ministre bi yor wàllu culture. mu bàyyi noonu dem ci ministre bi yor wàllu éducation nationale. foofu la mu bëgg a dem ndax ndax daara ndax daara wàllum éducation la. voilà euh, léegi oustaz yow da nga wax benn mbir boo xam ne pour man. Euh, mbir mi su fekkee tey bëgg nañ suqali daara yi dañu war a bàyyi di askane maanaam li koy suqali mu jóge ci état bi lu tax ma wax loolu oustaz mooy ne ñun dañu nekk ci mbir moo xam ne xam nga lépp loo gis muy dem rek ay xalaat ñoo koy doxal. ak système. ñaar yooyu mooy doxal mbir. léegi ñun système bi nga wax ne moom moo fi ne système boobu daanaka dafa jubluwul ci suqali ay daara. tant système boobu keroog rek euh, euh, benn oustaz ñëw na fi mais loolu ñun dañ si dañ si méngoo dañ si ànd àndandoo mooy ni que système bi dafa jubluwul si si si fànn woowu mais oustaz yow da nga wax lu am solo. mooy yow sa daara am na ñetti téeméeri ndongo. te kenn si ñoom xalaatul yalwaan. incha mais léegi sëriñu daara yi ñoom si loolu la war a orienté. ndax yow oustaz ni nga waxee mooy yow état su la dimbali. nee nga ministre Moussa ba fii ma toog waaw mais kon tey sëriñu daara yi dañu war a am beneen gis-gis bàyyi état bi na le comme yow ni nga def nii kenn ku nekk si ñoom di xalaat nan lay indee ay ay ay ay ay ay gis-gis ay xel ak ñu koy jàppale ak yàlla di ko jàppale ba daara ji dem kanam su fekkoon tey yow li nga di wax ni multiplier nañ ko par vingt par ñu jël ñaar fukki daara yu daara yu mel ni sa bos. Mm. nga xam ne am na juróom ñetti téeméeru ndongo yoo xam ne ñu ngi jàng normalement nekk ci conditions yu normal te demuñu yalwaan. Mm. léegi daara jëm kanam. damay dëgg li wax mooy que xam nga nit yi mën nañ dëgg li mu wax ñu ne waaw mais oustaz Sall xëy na léegi xam nañ ko am na moyen mais li muy wax mooy que yow da nga démarré si zéro bi nga fii bi ngay nekk Dakar boobu si zéro nga départ mënoon nga ne attends ma jël xale yi dajale leen di leen yol yelwaan loo mais yow yoon bi nga jaar ba egsi fii pourquoi ñoom duñu fa jaar ba egsi fii ah waxal na ma Aliou Ndiaye waxal na ma <laughs> léegi contre la mais waxal na ma oustaz <laughs> léegi bu xel yëpp tolloo woon li wolof di wax bu xel doon jaay lamb nun ñëpp nu ñoo bokk départ andoo noonu man mën naa am peut-être ay xame ak ki pexe ak ñoom seen yooyu déparé ko fayu ñu may fay am na koo xam ne ki xel xalaat mu fay munu hmm. ko sax. waaw mais mënu ko sax waaw mais oustaz léegi kon su boobaa nun duñ bokk départ. waaw mais oustaz kon li ñu bëgg wax mooy ko yow bi nga xamee ne amagoo moyen. yow ne woon ne xaaral ma def daara yow nekk nga fi di def yeneen façon gu jàngale yoo xam ne nit yu bëri profité nañ si muy man muy muy muy tunkara ñu ñëpp macha allah jàngal nga ñu mais te te am na façon yoon boo xam ne mën nga fa jaar te doo ne xaaral ma ubbi daara di jox xale yi ñuy ñu yelwaan léegi hmm. daara du nit ki day jóg rek am lu mu ko sampe du daara sax nag hmm. adduna ci boppam moo mel noonu da ngay tàmbali di dem di jóg xëy na message bii nga yor nii. Hmm. mën naa àgg ci ñoom mais nag darul loo xam ne ñoom it dañuy xëy daal koy def. Hmm. masalan eh, ngeen maal ma sax yéen ñi. Hmm. sama ñaari dong yii toog ci daara ji ci kaw taabal ji nii. <laughs> su fekkoon tey kenn ku ci nekk dafa noppi dem sampiwaat daara. ba tey daara yi gën a soxla ko loolu am la. <laughs> Eh, sama daara kaay leen. <laughs> surtout moom mi moom mi. nit day ñëw ci dëkk bi samp daaraam waaye nag yamuy am pour samp fa daara ja loolu du dem nit mën naa ñëw samp daaraam mais ay xameem ak ñoom seen yooyu mu mën caa mu mën caa def waaye li ci nit di daj masalan tey man damay am hmm. conférence man nga ne tey weer woo dugg samedi yëpp ak dimanche yëpp maa biti mais la ma cay amee bu mu ñëwee bu ma ko xëpp ci daara ji daara ji fay hmm. Ah, la ma cay amee bu ma ko ca xëpput oustaz xam nga pexey ngoog daara ji fay mais oustaz pexey ngoog waaw léegi nag est-ce que sëriñ daara moom am na loolu waaw mais pexe la xam nga yow benn pexe benn pexe a pexe la mais moom ndax am na pexe moomu waaw ne oustaz waxuma pexe moomu noonu waa waaye yeneen pexe ndax pexe du doon benn rek baax baax na léegi pexe du doon benn rek daara ñu ngi lay seetaan ñu ngi lay dégg man kay li ma leen wax pexe mu yam lu fekk la ci <laughs> waaw li ma leen bëgg wax xam nga lu gën a man a ref defar daara hmm. mooy dañoo am sañ-sañ ci réew mi doon ay doomi réew mi am ay nationalité réew mi hmm. du dëgg sunu doom yi ne ci réew mi nuy hmm. génn suñu impôt suñu TVA yi di ko fi dugal li ñuy def ci daar ci école bi nan ñu ci mosal tuuti nañu subventionné école yi eh, régime bi weesu noonu na 40 pour cent lay def ci njàngale bi waaye waaye nañu ci jox ñun 5 pour cent nu dem <laughs> <laughs> oustaz oustaz euh, loolu loolu loolu am na solo. léegi oustaz euh, beneen mbir mi mooy. 5 hmm. pour cent yi budget bi réew mi yor na suñ daara yi. dëgg la oustaz léegi beneen mbir mi mooy euh, daara yi tey modernisation bi leen war a moderniser loolu tam dañ si war a wax. d'accord ndax xam nga <clears throat> ñun ñii ñëpp tey buggoon nañ suñuy doom suñuy njaboot ñu nekk foo xam ne nañ. xam seen diine bu baax xam tamit seen wàll àdduna bu baax tey jamono yële benn coow amoon na fi ndax ay xale jullit dañuy dem si daara yoo école yoo xam ne euh, école chrétien yi la école nasaraan yi bu ñu fa demee di muuru ñu ñu ne dañ leen koy tere léegi oustaz est ce que loolu tey du problème boo xam ni daara yi ñoom dañ ko posé ba tey jullit yi ñoom ñemewuñu jël seen ay doom yóbbu ko si daara yi ngir am yaakaar ne xam-xam bi ñu leen di jox pour ñu mën a taxaw si wàllu àdduna dinañ ko am pour ngir seen diine ñu taxaw si. jërëjëf gis nga daara dafa judd rek moderne modernisation lañu war a indi daara moom mu jàng si mais daara moom moderne ba pare. li ñu tuddee mo li ñu tuddee modernisation lañ war a indi ci daara ji daara yar ko moom waaye modernisation moom daara daa judd rek def ko. dégg nga de. léegi nun waxuma nun da sëriñ daara yi de ñun jullit yi noo war a soppiku doxal doxalin bu bokkut ak wi ñuy doxalee war na noo mën a am daara jàngal ci nit yar ko yar boo xam ne bii nit ki dootul xemmem di jàngalu feneen mbaa di yarlu feneen programme éducation nationale bii war nañ koo mën a am jàngal ko xale bi te yar ko yarub diine noonu loolu mooy suñu programme programme euh, éducation nationale moom la ñu yor noonu jàngal xale bi bu fekkee tubaab lañ ko jàngal ñu ta jàngal ko tubaab ba ne ar waaye nag yar ko yorob diine ba mu ne hmm. nojj ar nojj ba mu nojj su fekkee dañ koy jàngal arab ñu jàngal ko arab yar ko yarub diine parce que mbir mi yëpp loo mën a jàng baax na iqra bismi rabbika mu des nag lu ñu lay yar donc nun nun jullit yi noo war a am ay école yoo xam ne école lay tudd ay daara yu tudd daara mais nit ki mën faa dugg jàng li bëgg a jàng lépp ba noppi nag jàng àdduna mii. su boobaa ndongo yi du ñu grève enseignant yi itam du ñu grève. mosunoo geraw ñun mosunoo xam ndongo yi geraw mosunoo geraw. oustaz li may mujjee li may mujjee mooy maanaam yéen liggéey bi ngay def oustaz yàgg na bi ñu lay commencé dégg si rajo yi. tolloog ay euh, ay ati at euh, yow ak yeneen oustaz oustaz nangam ak sàngam mm-hmm. léegi oustaz boobu ba léegi. dañu gis ne yaa ngeen di jàngale yaa ngeen di wax yaa ngeen di waaraate waaye taxul yi ngeen di woote daa mel ni kenn dégluwul ndax dañuy nit ñi dañuy gën a jooy ne jikko yi day gën a yàqu at mu ñu dem euh, weer wu ñu ne bés bu ñu ne rek ñu ne jikko yaa ngi gën a yàqu te yéen bés bu ne yaa ngeen nekk si rajo yi ndax dama am benn seetlu bu ma def si wàllu rajo yi yéen si boo xoolee gride programme programmes bu benn rajo waxtu yi si ustaas yi am keneen amu ko boo xoolee si wàllum waaraate yi ngeen def guddi ajuma bésu ajuma ak weeru koor waxtu yi ngeen di am kenn amu ko. dëgg la te yéen da ngeen dugg si biir kër yi. dëgg te boobu ba léegi oustaz mbir mi doxul. léegi waaw. noonu ñuy jàngalee. ci rajo yeeg télé bi technique de communication bi nu war a am nun amuñu ko. Ah, lu tax loolu oustaz. dangay gis ku yor émission ci tele bi di di di di jàngale ko waaraate. Hmm. ñun ñi di reer. Hmm. Mm-hmm. <laughs> di reer am na oustaz buy jàngale ñuy reer li muy wax yu teelu leen ngeen indi seen émission bii tàmbali rek waa ji ne teg téye ku dëm lu tax parce que ni ngeen di ni ngeen di jokkook ak moom bokkut ak kii ni muy def boo ñëwee ci rajo ba toog ngeen baal ma yéen oustaz yi ak man mi ci laa bokk toog ca télé ba naan leen euh, tabarkalla yow da ngay <laughs> mais am na nu muy demee na xam ne bu ne woon asalaamaaleykum ñëpp ne tekk teg seen kuddu mu jox leen benn message message boobu nag bu doon jàll ci ñoom jikko yi changé jikko yi soppeeku. yow ñu ngi lay déglu bu baax non non moom dafa ñëwul télé dafa ñëwul bien man moom programme mu télé dañ rajo nga am <laughs> ginnaaw suba ñu man rajo laa am maa ngi def nag la ma man maa ngi yaakaar ne danaa ko danaa bëgg naa ko romb yi nag mhm. parce que bu élection yi ubbee danaa def leneen pour dem feneen hmm. pour di yeneen wax ah, nekk député mais mais ñu si tuuti kooku. loolu c'est un scoop yow nga ne da nga bëgg a euh, bokk si liste yi. ah. da da nga oustaz da ngay da ngay. xaaral ba campagne bi oustaz politicien nga léegi ngeen xam ne maa def nii. <laughs> léegi ba balaa balaa ñuy ñu dugal suñu mbokk suñu mbokk cantakun bi c'est que actualité actualité bi moom mënuñ si ñàkk wax am na ay affaire yu ay ay xew-xew yu tiis yu jot am si diggante ñoom c'est Cheikh Béthio Thioune ak yenn si ay taalibeem mhm. bon xaw ma yan jàngat yow yow nga ci am dégg naa xëj na tuuti nga wax si si rajo bi xam naa bëggoo cee sori waaye yan jàngat nga si am si waaw bëgg naa ci sori sax hmm. ndax lu yitteel lislaam rek ñëpp la yitteel dëgg la lu dëgg euh, sunu borom daa wax ci alxuraan lu am solo dafa wax ne allazina yuballiquuna risalati rabbihim wa yaxshawnahu wala yaxshawna ahadan illa allah mu di nun ñu ñu tudd ay doomi soxnaa ki sëriñ dañoo war di waxtaan lu dëgg bu nu waxtaanee dafa am yoo xam ne du nu dal mhm. bu nu dalut kenn du nu mënal dara sunu ñëpp nag ne cell ne tekk lu ne mën na noo dal du dëgg kon yii nga xam ne moo dal tey pénc mi dal ci kër gi kër Cheikh Béthio mën naa dal ci geneen kër lu tax nun sëriñ si noo dul waxtaan danoo war di daje di waxtaan di weccoonte xalaat kenn ku nekk di wax ak sa morom du dëgg su nu ko defee jàmm danaan ñooyu ci benj mi bu nu ko defu nag bët bu set mën nañoo dal ci fii lii ma naa xew tey bu ëllëgee li xew bu ëllëgee oustaz oustaz yéen yéen sëriñ da ngeen di siisante wala moo tax doo leen waxtaan non du siisante hmm. tubaab bi daf noo ëpp doole daf leen diviser pour noo ëpp pexe hmm. pexe yi kiy yàq nag bu ëppee doole pexe yi kii defar kiy defar li muy defar du feeñ benn hmm. xam naa ne dañ doon def transition xëj na pour introduire euh, suñu suñu suñu mbokk mi jëwriñ universel nee na euh, en français ou en wolof. wolof wolof ah pendant qu'on y est pourquoi pas. waaw donc jëwriñ universel d'abord jëwriñ universel mooy lan. jëwriñ xanaa damay tàmbalee di nuyu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. di jiital samay kàddu nu ko sunu sang bi jàngalee di wax jërëjëfati Serigne Saliou. waaw wax dëgg di santaat lool si émission bi nii ngeen ñu invité euh, te di remercier si invitation bi ngeen di def di remercier tamit ñu nekk ci plateau bi yëpp te di nuyu it oustaz ndax it képp kuy jàngali diine war nañ koo beral ab nuyoom te li muy def xam naa ni sénégalais yi xam nañ ko kon li may tàmbali rek mooy jëwriñ universel jëwriñ moom fonction la fonction day mel ni nga ni lieutenant ndax c'est le lieutenant d'un cheikh ka ka ngay ka ngay tenir moom daal moo lay teg ci benn bërëb moom nag daanaka man jëwriñu quartier laa woon. Mhm. mu dem ba ne ma léegi def naa la jëwriñ universel. mooy ne que daanaka aw ma kenn du ma si espace géographique baat baa ba fépp fu ma mën a dem jëwriñ laa fa. Mhm. donc fu mu toll nii mën nga mën nga wax bu baax si si si seen kàddu. mën naa wax seen kàddu ngir jëwriñ laa mën naa wax si seen kàddu ngir seen mbokkum taalibe laa mën naa wax seen kàddu ngir tamit sama ay mbokkum jullit nañu. Mhm. léegi euh, comme ni ñu ko waxee sànq am na ay ay ay jafe-jafe yoo xam ne yaa ngeen koy dund fum mu toll nii. ndaxte seen cheikh euh, fum nekk nii defe naa euh, mu ngi si biir mu ngi kaso daal. maanaam donc li ko tax mu dem fa xëj na. Euh, am na lu ñu si dégg si presse bi euh, dafa amoon xeex bu amoon seen biir mu am ñu si ñàkk seen bakken mm. donc yow bu ñu leen invité mooy parce que comme si actualité bi ngeen nekk ñu bëggoon yéen seen seen li nga ci xam nga nga wax ñu ko wax ko téléspectateurs yi. Oh, ñun de lu ñu si xam du leneen lu dul xam nga ku yàgg ak euh, nit dana am jeexital bu muy bàyyi si yow ndax jus d'orange bi Tunkara di naan su ko naanoon ba mu jeexit ku koy xentu it di nga xam ne ah lii de jus d'orange ni ci doon naan soo tàmmee naan jus d'orange te yar nañu yar ba nga xamante ne xam nañ ko xam ba nga xamante dinañ xam luy ay jëfinam ak lu dul ay jëfinam ngir oustaz daa wax lu am solo mooy daara te ñun ñii di ay taalibeem daf ñoo institué ci ay daara moom bañ na ko ba baatu daayira da koy aaye ngir indi daara mooy daara bu ci nekk na ngeen ni am jëwriñ ci daara la la ñuy def di lay tarbiya di lay tarqiya di lay tafsiya ndax nit ki mënoo koo defar mën mënoo koo koo defar te tarbi tarbiya ko kon ci tarbiya boobu nga xamante ne c'est une éducation spirituelle loolu saa su ne loolu la ñuy jàngal mooy ci defaru xam sa kàllaama noo war a waxee noo war a defee sa diine ak lépp li nga xamante ne mi ngi lay laal yow sa wàllum àdduna ak ci lépp ngir daara moom daa amul fu mu yem hmm. waaw daara euh, pour man waaye li ma la bëgg laaj xam naa ne xëy na Tounkara loolu la bëggoon laaj waaye ma laaj la ko mooy que yéen xanaa kon seen seen terre dafa échec parce que boo demee ba si biir taalibe yi xeexoo di fa am ba reyante di fa am ba jël nit ki suul ko ak ni ko xamee yëpp kon xanaa yéen seen tarbiya dafa échec. waaw tarbiya moom mënta échec ndax xam nga soo indee question bi ci wàllum ñi nga xamante ne la tax ñee ñëw la tax ni xeex xam nga daf ci am loo xamante ne daanaka wàllum justice la loolu. man du ma may ma ciy sori. waaye ñi nga xamante ne ndax wax dëgg dama bëggoon attirer rek attention aux population sénégalaise ngir jamono ji lu ma remarqué day mel ni que sénégalais daa gaaw a fàtte ndax boobu léegi fàtte nañu acte yoo xamante ne Serigne Béthio def na ko fi ci Sénégal bii waxuma samdi bu nekk nag yu muy rendi di joxe doomu aadama yi te amul xeej ak seen di leen di jox ni berndewu mi ngi tabax ay juma mi ngi tabax ay daara daara yii nii wax Serigne Béthio ñaata daara la tabax daara xel kom yëpp moo ko tabax ànd kook ñun di jëflandi ci si daara ngir xam importance su daara kon kooku man jàpp naa ni c'est pas un échec waaye dëdi nit yi saa su lu xew. non tarbiya bi bu may wax wàllu jikko yi xam nga. fi may waxee foofu la mooy wàllu jikko yi wàllu comportement bi nit ki war a am na nga war a gérer les les les problèmes internes si biir parce que euh, kuréel boo gis dina am ay ay ay problèmes mais ni ngeen koy gérer en interne foofu na ñuy xamee xëj na. Euh, éducation spirituelle bu réussir ak bu réussirul euh, léegi problème booy réglé ba ba ba ba euh, sox di fa jib ba deret di fa tuuru moom laay wax naan est-ce que instant boobu nit ki ñi nga xam ne ne surtout loo xam ne xam nañ ne si këram la amee woon. Mhm. donc mooy donc këram mooy ñi ko gën a jege ñoo fa nekk. donc ñi ko gën a jege mooy ñi war a nekk ñi gën a defaru. Mhm. donc loolu moo tax ma naan est-ce que foofu coow problème amul. déjà bon du ma ne ci këram la amee ndax gars yi ñi ngi def seen enquête ñi ñu ngi naan extérieur kër bi la awee ñi kon pour man de ay taalibeem ñu defaru nañu de soo ko fekkee ni fekkee woo mbir xam nu mu demee ndax xam nga relation diggante taalibe akub sëriñam daa délicat te lenn li benn passion bi wax dëgg fa yàlla man de ah sa qui me concerne mënuñu see wax waaye su fekkee dañuy jël ñooñu xam nga sooy jël échantillon na mm-hmm. ngay jël échantillon euh, massal waaye li may wax rek ñi nga xamante ne ñoom defar na leen ñi nga xamante ne ñoom mën nañoo muñ te kat defaru bi weesuwul lii nga xamante ne ni nga koy gis mooy ci euh, taalibe yi nu nu calmé ndax kat du am li mu am ci ay taalibe te ba tey wax dëgg lu dul lenn lii ñuy dégg waaye yenn dérive bi fu mu waroon a egg xam nañu waa Sénégal xam nañu ko ah, yeggu fa ngir te loolu yëpp day wane màndargay defaru la ndax képp ku ànd ak moom si ñenn ñi da ngay gis taalibe ne man duma ma ànd kuy tux du ànd ak kuy naan duma ma ànd ak kuy mooy yàlla damaa bëgg ngeen jub ndax yéen kat ay taalibe ngeen ay jullit ngeen ay murid ngeen ay cantaakoo ngeen waa kër Serigne Saliou ngeen kon kooku wax dëgg fa yàlla defaroon tuuf na ci ñun. soxna Benga. Euh, man deman damay commencer ci ñu ñaanal ñi génn àdduna ndax loolu am na te foog naa neexul kenn. Mhm. Euh, li ma bëggoon laajte mooy yéen yow jot nga xam jot nga xam ñoom xamante woon ngeen. kenn ki. kenn ki kan ci. mooy kii ñuy wax Baara Sow. Baara Sow nan la meloon ban façon. moom à l'échelle du kuréel. jàpp naa ne ñëpp ko xam Baara Sow ku si ku fi xaw a am ay fan di nga xam kuy Baara Sow sa njëlbeen nga wax dëgg euh, balaa yëpp di koy dalal ñëpp xamoon nañu ko jàngkatu xasaayit la woon daa mbokkaloon sas bi ba nga xamante ne moom nu ko neex la ko doon jàngee ngir neex baatam bëgg sëriñ becco lool waaye ñi dem ba benn moment mu mel ni ndeysaan daa tàggalikoo ak sagoom te sëriñ bi si boppam moo ko doon yóbbu ni koy faj ndax sëriñ bi am na fu mu tegoon sëriñ saaliw fu mu ko teg ba tey loo xamante ne du bugg mukk ni koy jël di koy teg si kaw sëriñ saaliw mu ne ko ah baara su ma sañoon da nga faju ji te loolu daana ku ci bëgg ay preuve daanaka vidéo yaa ngi fi ndax cant gu ñu def dañ koy filmer waaye ba mu demee ba nga xamante ne amoon na bi animé ne woon benn violence dafa demoon ba dafa ëpp su doon tëb kër sëriñ bi di agressé wala verbalement di wax leen lii soxna sëriñ bi sëriñ bi demoon na ba déposer ay plainte te pe plainte yu du woon benn du woon ñaar du woon ñett te loolu mosuma dégg kenn wax ko ndax saa yu ma dégg boobu procureur bi génne ma mosuma dégg dañoo ñëw rek accuser sunu sëriñ waaye mosuma dégg ñu ni waa kii nangam ak nangam ak nangam waxuñu ko waaye dëddi ay teggin du la may nit ku ngay wax leen lii waaye man personnellement lu ma jot a fekkee si ay cant ah, saa su ne. da doon yóbbu sëriñ bi si ay état de hal yoo xamante ne ci tàng yow soo dee taalibe doo ko mën a supporter wax dëgg fa yàlla doo ko mën a supporter te baat yooyu mënuma ci ñëwaat ngir taalibe laa te loolu du ma si yegg. Mamadou Tounkara waaw euh, <coughs> jëwriñ dañ la <coughs> euh, jëwriñ man laaj bi njëkk laaj mooy yow da ñëw rek ne jërëjëfee sëriñ Saalum. Mm-hmm. Euh, lu tax yow commencé woo sant yàlla julli si yonent bi salaahu salaam. waaw xam nga nit ku nekk lu la yaree rek te dama di jullit xam si la ma sunu sëriñ jàngal lan mooy tawhid gëm ni yàlla kenn la sallallahu alayhi wa sallam mooy sangu bi yonent yi gëm téere yi gëm malaaka yi gëm pës penc gëm dogal. loolu da jàpp naa ne oustaz suma jumul xam naa li ma ñàkk-ñàkk jàng jàng naa ko si nasaraan mooy al imaan al iman gëm ko xam ni tamit l'islam daa am ami ponk l'islam xam ni tamit ixsaan daa am mooy li nga xamante ne mooy wàllum suuf te xam nga ku lay wax ngay dégg adduna bi lépp loo gis rek ku ci nekk na am sa référence na ngay gis su économiste yi wax di wax Adam Smith. Hmm. dañ koy doyloo ngir xam nañ ko si anam bii mu nekk kat ah xarañ na si. ñenn ñoo xamante ne man wóor na ma ni oustaz mooy mooy seen mooy seen sëriñ parce que lu mu wax. bu ah, bu léegi nekkoon nga nekkoon nga Ibadu balaa ngay nekk Cantaku non. yow loolu yëpp dëgg la formation ah, formation la parce que adduna bi day dox. damaa gëmoon yàlla. te ba tey gëm yàlla. ah da nga gëmoon yàlla dama ne ba tey damaa gëm yàlla. Ah. gëm yàlla gëm yonent bi. nekk di dem si ay juma di tarbiya di xool ngir l'islam su la ñoree dootoo ko tey waaye nit ki nag xam nga. mbirum yàlla te xam naa ni moom man de je vous wala recommandation nga def bés le grand rendez-vous boo xamante ne grand rendez-vous spirituel rek lay doon. boobu xam naa ni dina neex dinañ si gën a mën a. maanaam jëwriñ tontu woo si laay. waa de c'est c'est laay ñëw nii xam nga jërëjëfati Serigne Saliou boo ma xamee Serigne Béthio ba tey nii ànd di dem si Serigne Saliou balaa muy tàmbalee dara jërëjëfati Serigne Saliou te jërëjëfati Serigne Saliou boobu kat nee na si xadis képp koo xamante ne. moo fi toogal sunu borom. hadis mooy lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax. mooy nga xam mooy kuutaayu yonent bi. fii ci kaw suuf. muy représentant wu sallallahu alayhi wa sallam rek daanaka fii ci kaw suuf hmm. kooku soo ko jàppee jàpp nga solo sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. soo ko jàppee jàpp nga yàlla. Hmm. loolu hadis la ah hadis la kat. hadis boobu si ban téere la nekk. ah, ah déet yéen. ah jëwriñ nag. déedéet <laughs> bul inventé hadis. déet inventé wu ma benn hadis. Ah, waaye dama ne. à chaque début de siècle ah. verra apparaître un rénovateur de l'islam hmm. koo xamante ne et puis le plus euh, simple suñu waxee hmm. les saints sont les héritiers des prophètes jëwriñ man man dafa mel ni man non seulement yow tontu woo sama laaj mais li ma wax waxuma ni yow bul ne jërëjëfee Serigne Saliou dama ne lu tax yow nga jiitaloo sant yàlla julli si yonentam sallallahu alayhi wa sallam balaa ngay wax yooyu loolu rek laa wax ndax ñun jullit yi hmm. defe naa ni tey boo demoon Euh, fu mel ni Pakistan. Mhm. nga wax fa loolu nga duñ ko xam mais boo ne la euh, boo sante yàlla julli si yonentam sallallahu alayhi wasallam jullit yëpp nañ si mën a gisee loolu loolu rek laa bëggoon wax. léegi mhm. euh, mbir mi xew moom xew na te ñun ñëpp ñu ngi naxarlu ñi nga xam ni faatu nañ si kenn nañ si àdduna yàlla leen yàlla yërëm. te dugal leen àjjana. te yéexe ñu ñun ñii. léegi ndax yow sëñ bi bi mu demee kaso ba léegi yow seeti nga ko. Euh, déedéet. lu koo dégg rek ah doo tamit garde à vue. garde à vue garde à vue nañ ko. waaw waaye loolu dina ñëw waaye crime bi kañ la dem jugement bi bul fàtte ba mu ko defee yàggul. non defaguñu jugement de. non defaguñu ah, jugement waaye ah xaw jaxasoo defaguñu jugement dañ ko inculpé. dañ ko inculpé ba pare defeere ko. léegi loolu yow yow miy jëwriñ universel. Mhm. dëgg nag waroon nga dem seeti cheikh waaye ay doomam. Hmm. mët nañ sëkk ndax saa su ne ñoom ñu ngi jox ay nouvelles ci sëñ bi. Hmm. ci nu mu def te kat dañoo nekkul ci loolu rek waaye man wóor na moom foo foofee mu ne moom xam na ñun si lu ñuy yëngu ndax nag neexul ba neex daa am ay avocat daa am taalibe yi te lu ci nekk ak lii ma def nii am na foo xamante ne ku nekk mën nga faa servir dëgg la mais léegi lu tax yéen tey euh, mbir mi bi mu xewee ba léegi euh, ñuy gis ne euh, yéen dangeen dem rek si benn boor mooy ni que sëñ bi moom taxu si dara te ñun ñëpp amul kenn si ñun koo xam ni tey yor na mu élément yi nekk si mbir mi ndax procureur bi ngeen wax ne que moom daa gaaw wax ak yooyu procureur bi amaana am na lu mu xam loo xam ni man xamuma ko lu mu xam loo xam ni yow xamuloo ko moom liggéeyam lay def comme ni nga waxee ni kenn ku nekk dafa am liggéey nañ ko bàyyi mu def liggéeyam nañu jàpp rek ne que moom li muy defagum ah loolu moom teg na ko si yoon ndax li wér te mooy nit faatu na ñaari nit ñaari nit faatu nañ. Mhm. suul nañ leen sa naka su dul noonu. léegi kan moo ko def ak kan moo ko deful loolu àttekat bi moom moo ko war a leeral. Mhm. moo tax ñun ñëpp ma jàpp ni que dañu war a maanu si mbir mi tant que parce que maanute oustaz mi ngi nii toog du ma bàyyi ma wax lu dëgg maanute moom dafa bokk si lislaam mhm. bu fekkee dañuy woo te maanute maanaam dafa safaanoo ak nga wax loo xam ni amoo si xam-xam. waaye xam nga maanute bi ngay tudd. Hmm. te ma nangu ko yow. waaye maanute weesuwul nit ki balaa ngay wax a ah, nga am ci ay preuve yu ñu ngi def enquête. Hmm. yow xam ko fu enquête bi terminé nga ñëw rek wax nangam présomption d'innocence. Hmm. waaye ñëw présomption de culpabilité xam nga nit sooy wax lu ma ñàkk ñàkk xam si wàllum jury. Hmm. waaye ñëw ngay wax au présent sëñ Béthio nangam def na nangam bokkut ak ak koo xamante ne day utiliser conditionnel. waaw mais kon instant yi enquête boobu nga xamante ne nit yi ni ngi koy def. mais chef d'inculpation rek la joxe waxagul ne. dem waaye nag liir fay. Mm. enquête journal gendarmerie la doon liir. Mm. parce que procureur mënul demee leneen mais léegi euh, jëwriñ. Mm-hmm. man dafa am benn mbir boo xam ni. daf ma xam naa xëy na li jëwriñ doon bëgg wax te eggiluwul mooy xëy na peut-être que comme euh, Cheikh Béthio Thioune kilifa la xam nañ ne du dem fenn et que xëy na santé mayu ko mu nekk seen conditions yi est-ce que mënuñu woon le temps ñu def enquête bi euh, ñu mettre loolu liberté provisoire la mais loolu non non avant avant loolu mënoon nañ ko mettre sous contrôle judiciaire avant même ñu koy ñu koy defee ki nga xamante ne kilifa la xëy na loolu am 76 ans waaw loolu c'est possible kooku fu ngeen bëgg mu dem sëñ bi mi ngi ak 76 ans 76 ans nekk administrateur civil mhm. xam lan mooy droit mhm. bëgg droit fonk koo di fonk loo ay taalubeem waaye lan moo fi jar benn artillerie bi. mais léegi ar ay avocat am dinañ introduire demande de liberté provisoire amaana ah, loolu ñoom si loolu la ñu nekk waaye nangu ko la mu bëgg wax mooy ni xam nga nit suñu demee ba Sénégal lu tax à chaque muy sous-entendre ay yëf doo mën a comprendre ndax it ay doomu aadama rek nañu hmm. te nit ci dañoo war a xam ne que nag am na ñu nekk ay mbooloo bu nekk ci ginnaaw sëriñ bi bëgg ko te gëm ko hmm. lu ñuy defal citoyen lambda hmm. te kii nga xamante ne donte sax am na ñuy jàpp ne tous les citoyens ordinaires du ma dugg ci gaal googu. waaye nag nañ xam ni que kii am na mbooloo bu ko topp. am na mbooloo bu ko bëgg am na mbooloo bu ko yaakaar. waaw mais nag mais mais jëwriñ foofu nag xam nga yow li ngay junj nii mooy li candidat Macky Sall waxoon ah waaye fi mu toll ni mbirum yoon lañ nekk yoon mooy am na lu xew nañu bàyyi àttekat bi mu wax si mais léegi jëwriñ man li ma bëgg wax mooy euh, yow da nga jiite mbooloo bu bu takku. ndax cantakun yi cantaakun yi ñëpp xam nañ tey fi ñu toll si wàllum lim fii si Sénégal ak si bitim réew. Mm-hmm. waaye dafay am luy dafa am lu xew si wàllum gis-gis boo xam ne si Sénégalais yu bari tey suñu bëri. mel ni man euh, dafa mel ni suñu xel dafay xaw a tey maanaam euh, tey sëñ bi Cheikh Béthio dafa ne woon dafay fal Ablaye Wade. Mm-hmm. loolu loolu nekkul yaa ngi dégg. Euh, loolu euh, ñu teg si jékki-jékki ñu ne Cheikh Cheikh Béthio dafa takk juróom-ñaareelu soxna. Mhm. yan jàngat nga ñuy jox pour jinj ñu ñun sénégalais yi suñu xel gën a leer tuuti. waaw xam nga li ma li ma doon junj si si kanam rek xam nga loolu sëñ Béthio li mu wax daa leer te ñun loolu lañu gëm daf noo jox ndigal ne yéen samay taalibe man sëriñ Saliou moo ma wan ci jënt jox ma ndigal jox naa leen ndigal jëfe leen. ñun jëfee nañu ndigal li. yow moom nga votel Ablaye ah, nga votel man man taalibe hmm. te yow sa xol looloo si ne woon. sama xol mu nekk si ñàkk si nekk xam nga ndigal dafa ji loo xamante ne yow jamono jooju doo jëfandikoo sa xel. ah xam nga naa la sital benn béyit bu Serigne Touba wax dafa ne l'intelligence hmm. est dévastatrice. alors que le ndigal tel le pas te mène vers la dictée divine. Hmm. man dama dib taalibe. waaw te man bi rek ma ñor. waaye nag alxuraan tamit alxuraan dafa jox xel euh, daf ko jox. fànn bu rëy. Mm-hmm. ndax alxuraan li mm-hmm. alxuraan dafa ni borom xel yi lay waxal. Mm-hmm. te yàlla tamit dafa ni que yéen na ngeen taxaw ngeen doon benn ngeen doon ñaar ba pare ngeen di xalaat. waaye xalaat mi ngi nii toog duñu bàyyi ñu wax ay ay voilà déet bii nga wax nag bu fekkee alxuraan bii ñuy ñëw yoonu si yoonu lislaam woo xam ne suñu xel dañu naan bu ñu jëfandikoo ti suñu xel ah yoon woowu day tey xel a ah, déet waaye nit ku nekk koo doyloo adduna bi lépp doy loola rek. waaw alxuraan moo jiitu lépp. wa ah alxuraan man alxuraan dafa ne bul bàyyi sa xel. alxuraan dafa ne bul waay mm-hmm. waaye nag xam nga nit ku nekk. sa référence borom xel yi lay waxal de. borom xel yi lay ñëw xam nga dérive bi muy wax mooy que xam nga toog nga toog nga toog si média nga dégg ne bërëb sàngam États-Unis am na ñoo xam ne dañu bokk ci benn sect fekk nañ leen ñoom ñëpp ñu xaru dee. Hmm. parce que boo demee ba bàyyi sa xel. lu la hmm. nit wax kooku ndox ndigal nañ doon waaye. seen guru wi ne leen xaru leen. parce que ah. lii xaru bi si ngeen di texe. ñoom ñëpp ñu xaru toog xool leen. xam nga ngeen ñii lan moo leen dal du ngeen toog di wax ngeen toog déedéet di ngeen toog di wax waxu guru. Mm-hmm. ma koy cautionné. Mm-hmm. ndax guru non dama joxe exemple xam naa waaye guru daa am fu mu jëm. ak koo xamante ne exemple ndigal rek la waaw xam naa ndigal boo xam ne da ngay bàyyi sa xel te dama ne xam nga nit na ngay xool critère ne lii mooy tax ñu naa nit sëriñ te ñun suñu critère bu mag sëriñ Saliou Mbacké la sëriñ Saliou moo seexal sëriñ Béthio Serigne Saliou moo ko taxalee jullit yi seen seen critère bi gën a mag mooy alxu mooy yonent bi salaahu salaam. waaye déglu ma waaye ah wax. waaye su ma nee Serigne Saliou yow Serigne Saliou sax nga ko génne ci alxuraan. déedéet Serigne Saliou sax nga ko génne ci rasulullah. déedéet Serigne Saliou sax nga ko génne ci diine l'islam. déedéet Serigne Saliou amuloon juróom-ñaari soxna loolu wóor na la. ah man de ñu xam ñun. ah déet alxuraan yéen ah, di soxna la pare. waaye voilà alxuraan soxna la. waaye léegi nag laa leen bëgg nag. oustaz bés bu ne mu wax ko ñaar ñett ñeent waaye boo leen tapetee ngeen jël benn. <laughs> waaye dama dama ne waaw loolu waxi oustaz la. <laughs> waxu oustaz waaye man Serigne Saliou Serigne Béthio Serigne mu doon jël cinquième moom waaye kan la tàggu ngeen foog Serigne Saliou Serigne Saliou moo ko ci bàyyi. septième bi nag ku mu tàggu. dama ne cinquième laa lay wax xam nga yaa ngi ñëw si benn balaa nga yegg sixième ak cinquième. loolu wóor na la Serigne Saliou ah, laaj leen Moussa Niang. Hmm. xam nga da wax loo xamante ne kii ngeen ne ko est-ce que Serigne Saliou waa wala déet waaye Serigne Saliou kooku lu mu validé. Hmm. man dootuma gis si kaw suuf koo xamante ne wax dëgg fa yàlla hmm. sëriñ Saliou suñ ko tuddee ak soo xamee luy sëriñ Saliou hmm. xanaa nga ñàkk koo xam nag na ko ñàkk xam nag wax dëgg mun ma ci dara man sama refet sëriñ Béthio hmm. ñeenti góor daal nañu wax ñeenti góor waaw septième bi nga ni kan la tàggu man de wax Alioune foofu nag su ma fas yow dugg doon ma fa génn ah d'accord kon boobu xamoo dara mais léegi jëwriñ est-ce que est-ce que tey mhm. bu ñu xoolee mbir mi nu muy doxee ñu nekk benn kuréel boo xam ne tey coow li dafa ni kur mhm. dara tuuru na seen sëriñ ñu ngi ko tëj kaso. Mhm. yéen tey fi mu toll nii euh, mbir mi daal xaw a takkarnaase mais jëwriñ ndax loolu. Mhm. Euh, du wane ni que dafa am yoo xam ne dañ ko bàyyi moom moo tax ñu dugg si yu mel noonu li ma bëgg wax foofu jëriñ lu lu simple la mooy. Mhm. Euh, ñun ñëpp tey dafa am lu ñu tënk. mooy li yàlla wax ak lu yonentam sallallahu alayhi wasallam wax. su fekkee yooyu dafa am yu ñu si yokk. wala yu ñu si wàññi. ndax du yooyu mooy dem ba dugal ñu si ay tuuxi duuna yoo xam ne duñ si mën a génn. Ah, man de su ma waxee yuñ si yokk yuñ si wàññi si laay mën leeral. waaw lu mel ni tey. Hmm. yow yow wax nga ko léegi nee nga alxuraan moom lu mu wax mooy eh, yonent bi sallallahu alayhi moom mooy suñu royuwaay. Hmm. léegi su fekkee ñun dafa am yeneen yu ñuy yooyu ndax yooyu. mais lan ñuy ñangas tunkar xam nga wax ji su soo ko ñemewul. dégg nga man déet man dama ko li ma la wax daa leer. Hmm. dama ne àdduna boo ma ne soo ma déggee bu baax dama ne ñii nii wax économiste. ku nekk am nga ci sa royukaay. Oh. ñii nii wax par exemple chanteur am na ñu nga xamante ne par exemple dañ naan su boo ko àndee moom donte sax amul disque d'or wala ah, amul de loolu amul waaye nag am na <laughs> am na kay ak lu am na koo xamante ne am nga sa royukaay dëgg la ñun hmm. ñun dañoo tënku ci yoon bi nga xamante ne moom la ñu gëm mooy yoonu Serigne Touba hmm. Serigne Touba gëm sëriñ saaliw Serigne Saliou boole noog Cheikh Béthio léegi nag ku ku mu doyul wax dëgg xam nga te li ma remarqué boobu ba léegi mooy ni day dama naan sénégalais yi. Mm. amanda ah, jaaxal nañ ma. ndax bu fi saal yu nekkee ba tey mm. déggoo kenn ne mukki ak lu Serigne Saliou wax Serigne Béthio yëpp am na ci li nga xamante ne wàllu diine am loo xam ne yow mën a diine. Mm. nooy mën a expliquer Serigne Saliou boo mënee Serigne Béthio ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana loolu fan lañ ko bind ci alxuraan. yow mi demee waxi alxuraan. alxuraan am fu mu tàmbale am fu mu yem mhm. yow sëriñ Béthio ku jébbalu si am ngërëmal yàlla na ngay gëm wala doo gëm mhm. kuy critiquer nag wala nga réussir eh, ah, dañu dañu dañu damal nga ni sëriñ Saliou mais sëriñ bi moom moo wax sëriñ bi moom moo wax Cheikh Béthio moom mooy wax ne su fekkee Ablaye Wade falul dootul nangu nji bu kenn jo bu ko kenn joxati njébal ah loolu wax dëgg man de ah man de loolu de léegi mën naa déedéet loolu keñ aajowul ndax cant googu yow mii di wax sax man maa ngi fa woon ah. Ah, léegi moo ko Ah, kon léegi kon kenn dootul jébbalu si moom. ah déet waaye boobu ma ko waxee li ma si jaaxal. wala dafa wax déedéet si dimanche si dimanche. Ah. adduna yi nit ñoo ñëwoon di jébbalu kon loolu nit ñi. doy boobu élection bi defaguñ ko. ah déedéet boobu defoon nañu élection yi. Ah. def nañu élection yi kon moom moo waratul woon nangu njébbal yi wala. xam nga xam nga njëriñ. moom loolu du ko def mu xam nga tax. parce que Serigne Sall daf ko ne bis tey képp ku bëgg jébbalu si yow ndigal laa ngoo na nga ko nangu. sëñ Béthio sañul bañ jébbal sañu ko am na loo xamante ne bokk ci ndax ndigal la te xam na luy ndigalu mais man li ma xaw a jaaxal mooy que yéen toujours na ngeen di xaw a nekk sur la défensive comme quoi nit yi ñooy comme li nga wax ne sénégalais ni ñu gaaw fàtte sëñ bi def na lii mel ni comme euh, nit yi ñooy ñooy ñëw di leen provoquer alors que man d'après jàngat bi ma am comme man Sénégal laa nekk maa ngi fi dund gisuma benn yoon xëj na nit yi euh, wax lu jëm si xëj na Thiantakouni wala Cheikh Béthio Thioune en général les gens par rapport information moom taxaw na ne maay fal Ablaye Wade nit ci taxaw nañ ne Ablaye du fi falu donc euh, xëy na à un moment nekk na benn jàkkaarloo entre moom ak askan wi parce que askan wi bëggatu ñoon Ablaye Wade donc foofu defe naa moom moo def pas bu mu provoqué askan wi deuxièmement xëy na euh, nga ñëw ne am naa juróom-ñaari soxna ñii naan soxna sëñ ñeent loo war loolu tam provocation la moom bu mu def koo xam ne ne nee na sama doom delloo ma ko mu ne ko man euh, moom moo moo bëgg moo ñëw ba yaay ji jooy foofu lu ne am fa na ma ne yooyu provocation la loo xam ne xëj na si yéen la jóge ñëw si askan wi mais jógewul si askan wi ñëw si yéen donc pourquoi défensive boobu ne gars yi nañ leen di def li alors que defuñ leen dara kon day mel ni xam naa ni waxin wii la waaye hmm. yow man sañu ma ko tuddee provocation hmm. ndax Serigne Béthio mais askan wi noonu nañ ko ah, jàppee xam nga non parce que moom li nga wax ne par exemple c'est comme une haine nañu cristalliser benn haine nit yi dafa am benn benn gis euh, mais loolu provocation la boo xam ne askan wi noonu la koy dundee ñi nga xam ne am nañ si seen doom ñu si nekk te bëgguñu ko noonu nañ koy dundee xam nga mais nit yi nañu am xol dama ne yow mi ko tuddee provocation te jëwriñ am na beneen bu ko yo non balaa ñu lay wax mënu maa yeggale ak waaye yow balaa nga koy tuddee provocation Aliou mm-hmm. waaye provocation day fekk yow moo loo xamante ne na nga naan ah lii naa koy def pour heurter nit ñi. non du tout waaye nit ci seen sensibilité loolu loolu boobaa xam nga man su fekkoon may ma xam nga lan def. Hmm. dama naan nit ki loo xamul na koy laaj. am na ñoo xamante ne suñu xamul lenn ci diine. na ñëw am na ñoo xamante alxuraan boo leen xamul laaj leen ñi nga xam ne ñooy ñi xam laaj leen ñi nga xam ne ñooy borom téere yi nga la mais ñooñu bu ñu laaj mën nañ xam nga bëgguñu ubbi débat si si loolu tax ñoo jóg mais hmm. mënoon nañ fu mu nekk nii dugg si débat boo xam ne xëy na yow doo ci mën a ah, tontu xam xaw a jafe mooy que comme dégg naa Tunkara doon ko fi wax benn jour te lool lu am solo la mooy que mouridisme euh, lu tax euh, waxloo si nit dara mu jafe mooy que comme nu mu ko waxee sëñ Touba mooy ki nga xam ne def naa si àdduna bi mu ëpp li mu fi bind donc le mouridisme par excellence c'est c'est la voie de l'écrit donc par exemple boo taxawee naan sëñ Saliou wax na sëñ Saliou wax na te ñun gisuñu mu bind fii comme ni nga xam ne moom la ñu sëñ Touba tàmmal mhm. lépp loo xam ne ne daf ko wax daf koo bind donc fu mu nekk nii c'est vrai que bon da koy wax ba voilà quoi ñu Sénégal yëpp euh, àdduna yëpp ñu lay déglu mais mënuñu xam ndax li ngay wax ne sëñ Saliou moo wax lii moo ko wax donc yooyu yëpp on n'a pas décrit quoi damaa mës a am a mais fu mu toll nii oustaz bi de am na loo loo si yokk pour nga oustaz xam ne dañ mënuñ ko cee am. kon liñ ci mën a am rek mooy jàpp ne euh, ab jullit day dellu ci alquranul karim dellu ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mag ñi bind it mu dellu ci. Mm-hmm. mag ñi liñ bind génnul alquranul karim génnul sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam liñ dundoon ñu nit loolu rek la loolu tekki mm-hmm. ndax jàng nañ ci xasida nun ñëpp min al xaqi jaa al lil xaqi fii saabin bi xaqin mu biin laa yuani min a saabi loolu Sëñ Tuubaa ko dëgg gu ngeen di wër dem leen ci téere bi nga xam ne dëgg rek la fa la tàmbalee fa la ko yemale te it buñ ci royee soobee àdduna soobee àllaaxira jërëjëf donc euh, non fu mu nekk nii Thiam ah, non Thiam Thiam Thiam non non waaw parce que fu mu nekk nii jeex na jeex na tàkk vraiment kaddu bi ma bëgg yeggee rek. Hmm. moom mooy. parce que damay bañ boo waxee euh, foog mu tontu la. li li Alioune li Alioune ak ah, oustaz wax ñaari ñaari Alioune yi léegi léegi moom mooy ni que. ñun euh, suñu diine bi diine bu ñu bind la. kon dañuy dellu toujours ci bind yi. Hmm. defe naa loolu moom moo ñu gën a mën a dindi moo ñu gën a mën a leeral que diw. dégg naa kii dégg naa kële ndax hmm. diine bi moom diine bind la daal. nga nga tëj rapidement. loolu balaa may waxee mot de la fin Serigne Touba dafa ne képp ku may liggéeyal ku ne yor naa xam-xam boo xamante ne nekkul ci fegu yi kon du lépp rek nañu war a bind ndax bind day am page bu muy tàmbalee am fu muy yem. leneen li ma bëgg wax ci euh, waa àdduna sëpp mooy ñun taalibe yi day bëgguma ni indi débat bi foo xamante ne yàggu fa du wàllum politique du lenn day mel ni mbir yi nag daa ndiru ndiru politique te jaru ko fi gëm nañu sunub sëriñ nañ bàyyi sunub sëriñ ñun moom nañu yaakaar tey moom nañu yaakaar ëllëg te cantaakoon yi day ñu sëriñ Tuubaa yar nañu mais bàyyi bi ngay wax mooy que bàyyi ndéganiku ba ñu xam lu lu lu yoon wax. justice nañuy laaj. ñu laaj ñu leneen lu dul justice. Mm. ku nekk établir justice mais ni bañ wala acharnement bi nga xamante ne ku nekk yaa ngi wax lu la neex. mais yi ñoo koy joxe kon. mais lu mais Assane Tounkara bien évidemment justicier du ñi nga xamante ne ils sont habilités à le faire. vraiment ñu ngi ñu ngi leen di gërëm bu baax euh, ñu ngi gërëm oustaz vraiment si si teewaay bi ñu ngi koy rafetlu di si kontaan trop vraiment yéen itam ñu ngi leen di gërëm xam naa ne xëj na je pense que li ngeen bëggoon wax yëpp waxe ko euh, Edouard Edou kii ñu ngi lay gërëm bu baax on vous remercie beaucoup euh, donc euh, on va on va on va clôturer par un live je vais d'abord remercier le public remercier les téléspectateurs qui nous suivent toujours aussi tard remercier les, les chroniqueurs qui étaient vraiment en forme aujourd'hui euh, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain nous allons clôturer avec un live de avec un live de Euh, qui parle de, de, de, religion aussi, qui, voilà, qui parle de la paix entre les religions. À vendredi prochain, Inch'Allah.